jununul hawa di seen émission bi ñu jagleel mag ñu baax ñi di muxaddam yi àndoon ak borom mbaar mi mawlaana maam xalifa ñas ngir waxtaanee seen taxawaay ak seen liggéey ci xadara bi ngeen mën koo am ci seen site internet naylul maraam point com site bay seetu ak tasaare jàngale maam xalifa ñas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki julli di ñuy suivre ci seen site internet www.naylulmaram.com ci seen cercle d'étude autour de la vie et l'œuvre de Mame Khalifa Niass ñëw nañoo ak yéen beneen yoon ci seen deuxième partie spéciale émission yi ñu commencé woon ak sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ As Khalifa Niass mi ñu tuddee Mame Khalifa di taaw ci alxaaji Abdullahi Khalifa Niass nekk référence bu rëy ci askanu Léona Niassène démb nag mu départoon nag ñun ci Mame Khalifa bu 900 bu 1930 waaye jëlee ko ca fa gën a sori muy fi Mame Khalifa juddoo tënkal ñu ko waaye nag ca diggante 1930 ba ko la ko daggee ci Mame Khalifa ni mu géré kër baayam ak doomi baayam yi mu géré ko géré mu leeral ko leeral bu doy waar yaatal ko ba nit ñi mën koo jariñoo yi nga xam ne moom moo cay ijaabiyaat yaag salbiyaat yaag yëpp seggal nañu ko rafetal ñu ko bañ mën koo jariñoo ba nga xamee ne ñun ñëpp fa tabarakallahu lañ ca waroon a déggee déggee nañ ko ci kon nag xam naa ni ñuy def mooy dañuy ñëw yéen ci deuxième partie bi àndaat ak sëriñ bi bu soobee yàlla incha allah léegi kon nag dañuy ànd ak sëriñ bi léegi mu ñëw ak ñun ci deuxième partie bi ñu war a dalee nag ci demuk faasuk Mawlaya Xalifatul Haaji Muhammad ñaata yoon la fa dem moom moom xalifa ndax benn yoon la fa dem wala bi mu fa demee histoire yi nga xam ne nii marqué na dem ak faasam boobu noonu histoire yooyu noonu yenn histoire la histoire yooyu yëpp fa tabarakallahu sëriñ bi dinañ ci ñëwal léegi incha allah bi awnillahi wa quwwatihi kon ñu ànd ak sëriñ bi léegi mu leeralal ñu li xew ci yoonu faasu maam xalifa ak ñaata yoon la ndax benn yoon la fa dem ak ba mu fa demee muamalaat yi mu fa jëflante ak manafex yi nga xam ne ni jëriñoo ñu ko yëpp muy njëriñ ya nga xam ne amee na ko ci yoonu ko sëriñ bi bisimilah ñu ngi lay nuyu beneen yoon.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين gannaaw buñ sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu mbokki jullit yi ci biir réew mi ak ci biti réew mi bokki Sénégal ak feneen fu dul Sénégal di waxtaane kilifa gu mag goo xam ne référence la marja la ci diine marja la ci insaniya mooy l'humanité ndax nit ñi dañoo war a am kenn yoo xam ne ci la ñuy wéeru kon ñooñu il faut ñu waxtaane seen mbir moo ñu indi tey ñu waxtaane góor yàlla gi nga xam ne dunda bi yëpp ci defar doomu aadama ci la ko wéyale ñu agsi ci tukkeem yi tukki bitim réew la ñuy njëkk a wax mi ci njëkk mooy aj màkka ba muy aj màkka booba maam alaaj Abdoulaye Niass Gàmbi la nekk booba ma nga dëkk bu ñuy wax Cham moo ko sos gannaaw kër ma sàmba kër ma sàmba ñeenti at la fay def saam dana ko def juróom benn at ànd ak baayam maamalaaji maamalaaji nag di dem faas moom muy dem màkk ba mu wàññee ko delluwut delluwut Gàmbi Kawlax la ñëw ñu ne nag ndax wàññeekoom boobu jaar na faas wala jaarut faas moom maam xalifa moom maam xalifa parce que ñu bëri li ñuy werante mooy ndax ci yoonu aju maam xalifa woowu dañoo am xilaafaat ñun ndaw yi jamono dañoo am problème ndax maam xalifa ci yoon woowu bi muy dem dafa jaar faas wala bi muy dëpp dafa jaar faas parce que léeg-léeg ñii dañ naan jaaru fa dafa jubal Màkka directement dëpp ñëwaat Sénégal Maam Alaaji di ko xaar Dakar ñii ne dafa fekk Maam Alaaji Faas loolu bëggoon nañ tamit mu leer
li am mooy euh, dem ak faasam bu njëkk moom ci yoon woowu óorut ndax moom bindu ko bind ko
te ko borom xalima moom euh, lu mu def dana ko bind wala li ci ëpp waaye li wóor mooy gannaaw Maam Alaaji la dem Faas 1925 ndax ci la Baye Alaaji Amadou gane àddina bi muy ñibbisi di dugg saxaar ci lañ ko ci la yëgee ne eh, Baye Alaaji Amadou gane na àddina comme moom bi muy gën a àdduna fekk fi maam xalifa déedéet fekk fi maam xarifa ci yoonu Faas woon ci yoonu Faas waaw bi mu ñibbisee nag ci la gane àddina maanaam bo booba xam naa mi ngi ñëw si Kaolack te ak seegut ci la yëg ne Baye Laa Jaamadu gane na àddina yoon woowu nag mooy wi wi wi wi wér ndax yoon woowu ba mu wàccee Kaasa dafa fekk Sukayri ji di ko tertu bu bagaas yi wàccee mu toxal bagaas yi bu demee jëli indi teg bu jëliwaat fekk ñu toxal bagaas yi mu ñëw gisul bagaas yi ne waa ana sama bagaas yi su koy yi nga ne ko man mii booba ñoom ci bindante rek ci lañ xamante ci lañ xamante waaye mosuñoo gisante ci yoon woowu ci la gisanteeg Sukayriju Ahmad Sukayriju Sukayriju nga ne ko man mii maa ko toxal mu ne ko man dey eh, Sukayriju moom moo waroon a jël si Sukayriju léeb léeb ko ne ko gisal ganaar te bul xam fu muy fanaan Sukayriju moomu ngay laaj mooy wax ak yow
kon moom laata muy ñëw ani su annoncé woon na Sukayri ju ab ñëwam et waxoon na ne bëgg naa ñëw faas waaye date bi waxu ko ndax xamoo bata bi lu muy def dëgg la
ci yoon wi Sukayriju ne ko ba nga waajee sama sa kër la ma Che- Seydina Cheikh wax ne am naa gan gu mag guy ñëw na nga ko teertu dalal ko Sukayriju xaadi la woon mu jël congé ndax maam xalifa ndax maam xalifa allahu akbar
ndax moom da daan àtte
kon Sukayri ju daal maam xalifa moo taxoon moom mu jël conseil mu jël congé ndax Cheikh moo ko ko wax mu teertu sama maam xalifa dal ak moom nag macha allah daan ànd ak moom di ko wan marché bi maam xalifa mu ne nettali na ko ne romb nañ ci defarkati dàll mu ne ko dàll yi day li ma ci defar ndeysaan
sama loxo yëpp dafa defoon ni ak sama maam ne ko ah ah jaar nga ci euh, kuude gi mu ne ko waaw waaw mu ne lu ko def mu ne moom xelam mi dafa naxoon mënta xam dara bàyyam génne ko ci école bi ne ko yow ca kuude ga nga jëm gaane bàyyam nag am gan ak wëliyu ngoon jot mu présenté ko xale yi kii mi ngi nekk safu nangam kii safu nangam kii safu nangam baag si ci sukari yu ne ko kii nag mënta xam dara ma yóbbu ko ca kuude ga mu ne ko mu ne ko mu ne Sukayreju dama ne indil ma sa kuraas mu indil ko kayam ba mu seet bind bind bi bi mujj bind muy laysa alayka hudeehum mu ne gisoo mbind mi li mu wax delloo ko ci ci école bi mu ne mu delloo ko ci école bi rek xel mi ne te cet ubbeeku kon moom aaya bi ci la sukkandiku rek.
waaw pour wax Sukayreju mi avenir am.
waaw ñu ne lu taxoon xel mi tëju nag daanaka dafa judda da- da- dafa judduwaale maj soog ndax ñu ne dafa am koo xam ne nit ñi dañ koo jàppoon comme dof ci faas mu yóndeelu ci mbedd yi ndeke maj soob la Sukayreju bi ko yaayam di matu dof bi ñëw ci kawob étage dof bi taxaw moo ki ki- ki ñu wax ne dof la te maj soob la taxaw ci bunt bi daal di kos benn almet te bant bi tàkk ne jottali leen ko jigéen jee di matu ca kaw ñu di ko jokkalante di ko jokkalante ba mu agsi te te bant bi fayut ba mu agsee rek ci la sukkari ji judd ñu ne xëj na moom itam dafa juddaale ak maj soob mu muur xel mi waaye macha allah gis ngeen Sukayreju lim taalif ci téere doy na waar kenn xamul nu mu toll moom la nekkal nag diirab euh, nekk ba mu fa nekk ba muy dem nag moom itam ni maam alaaji defoon defoon na ko ndax yóbbaale woon na soxnaam suñu wax fàttut ñeng loolu mooy yoonu faasu soo maam xalifa mu jëlee fa nag diggante moom ak Sukayreju moom maanaa daanaka bu ñuy wax ne kenn nit la rek ndax jaxasoo nañ ci zahir jaxasoo nañ ci baatin ndax gis ngeen addilatul muqnia boobu ila turuqil manfaa Sukayreju moo ko taalif yónnee ko maam xalifa mu saraago est-ce que raddu ibnu mayaaba bi xattu bu njëkk ba nga xam ne amutoon sara Sukayreju moo ko sant benn taalibeem mu mool ko mooy mool bu njëkk ba kon tax di indi maayaaba Sukayreju moo ko njëkk a mool ci xattu bi.
waaw waaw ci ci xattu bi amul sara ndax mool boobu rek lañ mool ci kanam maam Khalifa ci raddi indi maayaaba déedéet ak bi am sara bi am sara mool nañ ko ci kanam maam Khalifa.
waaw ndax moom ak kibrit ak merotifa yëpp 1955 lañ leen mool kon ñoom téere yooyu yëpp benn année lañ leen moolandoo waaw
ndax liir naa ne moom benn téere benn téere moo nekkoon mbébétam pour mu mool ko moom la yóbbaale barzak mooy wu mooy wuqudul jawhar xudul jawhar waaw léegi Sukayreju ndax moom moo newoon booba xalifa bi Cheikhu Tidiane foofu wala Sukayreju dafa taxawoon comme xaadi yi rek wala ku war a jël si maam xalifa waaw euh, moom dafa nekkoon koo xam ne Mhm, moo nekkoon lisaanu tariqa mhm. Mhm,
xam nga moom moo nekkoon lisaanu tariqa bi mhm, moo doon tontu laaj yi mhm, doonoon xaad yi di taalif ci tariqa bi mhm.
doon muqaddam bu mag waaye xilaafa gi euh, ay nomadin la nekk Algérie ilaa yomina haada xilaafa gi ci waa Algérie la nekk ndax Seydina Cheikh Algérie la jógee ñëw Faas Faas gan la fi Maroc gan la fi dafa ñëwoon pour làq si diineem ak njabootam ak tariqam ñu may ko fa ruq mu di fa jaamu yàlla loolu mooy indi turu zawiya xam nga zawiya ruq lay firi waaw looloo taxoon Seydina Cheikh tabaxut jumaa waaw xam nga li waraw di wax naan gan du yeewi bay loolu moo fi nekk moom gan la woon foofu yàlla yàlla dëppale koog buur bi Mawlaaye Souleymane kooku jàpp koo xam ne kii nit yàlla la Macha Allah.
kooku beneen ba beneen histoire la léegi nag manaafiq yi comme maam Khalifa agsi na sukkeeri ju jël na ay bagaasam dalal na ko manaafiq yeeg muamalaat ya xew foofu dégg am na ci yu doy waar ak yu limoo limu limu ci entre maam Khalifa ak sukkeeri ju ak maam Khalifa ak njabootu Cheikh ak yooyu yëpp naka nga ñu ciy ñëwale.
waaw loolu maam Khalifa moom buy dem day day yóbbaale addiyaam ku xeeyoo addiya foofu jox na la ko téere yam fa soxla woon te mënu ko am fii mu jënd ko fa leneen li nag waxtaanu baatin la ci mbooti tariqa bi yem ca bëgg te sukkari ju am ko sukkari ju jox ko ko ndax sukkari ju bindaatoon na sa maam leetar boo xam ne ka doon ŋàññaat Cheikh te dëkkoon Marrakech mooy Ibnu Muaqat mu ngoog maam Khalifa la sant mu tontu ko mu tontu ko waaw lim ci def yaakaar naa mën na téeméeri bayit yu teg moom la sëy Sidi Lamine rafaatal ci radu Ibnu Mayaaba bi yokk ko ci kon seen diggante sori na lool xool na ndegam zaahir bi mooy mel noonu sakanduma baatin bi waaye baatin nag moom doonul lu ñuy fésal wala lu ñuy tasaare kon mbooti tarixa bi moom ak ak ijaaza yim ko defal yooyu yëpp a ngi
ci yoon woowu xanaa ci la maam Khalifa jëlee doj doj doju Cheikhu Tidiane bi mooy doj bi nga xam ne nii.
waaw bokkoon na ci ay mataalibam waaw yoon woowu ci la jëlee doj woowu ndax Seydina Cheikh xam nga dafa waxoon ne bu génnee àddina Mamadul Xaali moo koy jiite. ñu génn ma gi àddina nag fekk Mamadul Xaali tukki. ñu ne ah kon de dana ñëw ndax wax yooyu lii du dañ. ah ñu sang Cheikh ñëwut ñu sang ku ñëwut. ñu jullee ko ñëwut ñu rab ko ñëwut ñi woyof pas-pas yëpp dañoo dagg seen kurus daal di koy sànni ne Cheikh moom li mu waxoon dara amu ci kon nag kii wilaya gi ñu koy jiiñ amu ko biñ toogee ba am juróom benn weer ci ay nettali ñu ne Muhammadul Xaali ñëw fekk juróom benn weer bi muy matat ñëw na waaye fekk nañu rob ko ah mbokk yi jógee ay numaadin ñëw faas ci guddi gas seex ba jot ko génne ko teg ko ci biti waa faas yi yëg ko daal di daw ñëw ne lu lii lu lii ñu ne leen seex dëkku fi gan la fi dañ koy yóbbu fa ñu rob ay baayam ak i maamam ak i yaayam ñi nag ne leen loolu mustahil mënta nekk da ngeen lenn rek moo ci nekk mooy ngeen rey ñu bañ jeex ngeen jël Cheikh yóbbu wala ñu rey leen ba ngeen jeex Cheikh des gouvernement bi daal di intervenir nee nag comme defutoon comme defu comme defutoon testament mooy wasiya ne bu génne àddina nañ ko yóbbu ay numaadin te fii la ko yàlla moomee te ñu ba ko fi rek ñu wax ba jàmmoo ba juboo ñu sangaat seex sangaat ko Mamadou Xaali door ko jullee wëlu yu danay wax nag waaye du wax mbir ma na muy demee ak kañ lay doon ak li nekk ci diggante bi du ko leeral nit ñi waaye julli googu moo wéy ndax ca la tëddee ci barzaq ba tey doj yañ ko ronaloon nag te génne ko ca doj yooyu la maam Khalifa amoon indaale ko ci yoonu faasam boobu bàttale woon ne bu génnee nañ ko ko gége naayele waaw léegi mu ñëw nag dee ci Sénégal macha allah seen alaaka bi di continuer ci muraasa la mais dafa am ñu wax ni ci yoon woowu maam Khalifa dafa mel ni dañ ne bindante naag waa kër Seexu Tijaan yi ba am ci ñoom ay ijaazaat ak tamit am na ci boo xam ne bii mu ngi ko jëlee ca Daarul Bayda beneen bi mu ngi ko jëlee ci ci dégg nga maam Marrakech xaw ma léegi yooyu noonu ndax yooyu ci yoon woowu la xew.
waaw loolu ndax moom benn yoon boobu ci liñ xam ci la dem. Faas. te itam lijaasa dañ koy jëli waaw booboo wér waaye muraasa la ñu yónnee la ci poste wala yooyu loolu moom dafa yomb ba ëpp waaye ki ngay ki ngay dajeel mu jox la mbóot nga toog mu toog chafawiyeen ak ki nga xam ne da ngay toog mu bind ci lo xattu loxoom jox la lijaasa boobu lijaasa bu wér la amul laam-laame ndax eh, da nga def maayana ak ki ki la ko jox Sidi Mahmoud mooy maami eh, kii Abdul Muttalib mi booba ma nga Casablanca Daarul Bayda kooku jox na sama maam mbóot bindal na ko lijaasa li ciy pirnde mooy li ma la waxoon ne bindkat moom lu xew ci moom dana ko bind mu bind inna saadata wal wilayata wa tuqaa maq- maqrunatun bi ijaazatil mahmudi kon Sidi Mahmoud jox na ko lijaasa bu wér boobu ah ñi nga xam ne itam ñoo nekkoon ci zaawiya ibnul arabi ñoom itam defal nañ ko lijaasa Eh, lijaasa yi bëri na mbóot yi bëri na yoon woowu moom sama maam daf caa duy ba fees daal di del si Kaolack toog delluwaatut faas delluwaatut Makka 1925 1925 waaw ndax ndax yoon woowu moom soxnaam boobu nga tudd léegi muy maam maam Fatou di yaakaar naa la waaw ndax moom rek la nga jàpp ci ñim antoon wala am na ñeneen nit waaw am na yaakaar naa daal ñoo xam ne suñuy taalibe lañ yaakaar naa xaw ma alpha jool euh, taalibe lébu lañ xanaa ci yoon woowu lañ bokkoon waaw ndax ñooñu maanaam li maam maam alaaji xëre woon noonu la xëre woon ndax daaji wasifa bi moo taxoon mu yóbbu leen xam nga boo ñëwee ñeseen ni ñuy wasifaa boo ko déggaatee rek da ngaa dem faas daaju faas bi moom la ñeseen yore muy méri naag ak lew naag ñëpp daaj boobu la maam alaaji itam moom moo fu njëkk a jëlee daaj boobu moom itam indi ko ak euh, buum ngam nattee woon zaawiya ba te natti ci ñetti zaawiya yi mooy bu njëgëneen bu teewaawoon ak bu ñeseen waaw euh, maam Fatou moo ciy jigéen waaye euh, moom yàlla mayu ko doom nag ci kër maam Khalifa waaw boobu beneen histoire la lu tax amut gannaaw buñ ko yóbboo faas ndax maam sa tuggeey bu ko sama alaaji yóbboo ba mu ñëwee la am maam Cheikh Tidiane muy caatam maam maam maam alaaji waaye bon loolu moom beneen xadiya la Euh, moo tax nekk ak wali yu lu jafe la ndax wali yu amut doom amut soxna ay taalibe la am rek te martaba damay wax ne illéerab gumba la xamiwu doom ak soxna ak jàmbur ak mbokk ak baay ak ndey ak yooyu yëpp xamiwu ko waaw kon moom waliwu yàlla moom sëriñ moom ñëpp taalibe la ñuy doon ci kanamam buñ bëggee jariñu ah ku ci def lu dul noonu rek la lay xañ moom du ko yëg sax te buy ñëw du ko tàggu loolu loolooy wax ji kon daal ci 1925 boobu ci la maam Khalifa dem Faas gane fa nganam lu rëy loolu mu ñu indilee xéewal yooyu yëpp ñu tudd te nga ne bi gën a wér mooy boobu ndax bind na ko def na ci xasida sax salaamun al qabril muniri fi mubariki ak ya ca aju yëpp ak xasida bayit yu fasantikoo yim ci def léegi nag xam naa ne bu fekkee ci biir ci biir xasida boobu salaamun alal qabril munifil mubaraki salaamu xalifin li dumuci shawabiki asheyxi hada xaadimun jaaba naxwakum gawaariba amwaajin wa fayxa dakaadiki tajuubu bihi barran wa bahran safainun tubaari hububa rihi sumal awariki bam naan ko qiraaya kuusun bil mahabbati utrihat ala kulli majsubin tudaaru wa saliki wa an aktasiya taajal karamati raqiyan ila al manzili al aali azizi al madariki xam nga wax nañ ne sax am na fa lijaasa boo xam ne cheikh moo ko jox allahu akbar
ndax cheikh moo ko imla sukayriju ñu toog ci xabru bi gannaaw xasida boobu bi mu dooree xasida bi waaw sukayriju di ko bind am na benn sufiyanke boo xam ne mos naa ñëw ci sama maam doon fi ut lijaasa waaye genre lijaasa boobu dafa wër fu nekk ñu ne ko li ngay wut xalifa ñas rek moo la mën a lijaasal lijaasa boobu ndax am na lijaasa boo xam ne ci cheikh la jógee directement jaar ci sukay waaw waaw moo ko imlaa rek kooku moo la moo la mën a jox lijaasa bi nga bëgg mu jox ko ko kooku bi mu ñëwee ci jàkka ji la dal ñu defal ko sànke ci perong ba féete woon na le ak kër Baye man ñes foofu la defoon sànkeem loolu moo ko indi woon sama maam defal ko lijaasa boobu mu dem xam nga euh, ñoom dañoo doon nit yàlla yoo xam ne soxlawuñ ci àddina dara utuñ taalibe utuñ ku leen jox hadiya utuñ ku leen màggal ñoom jariñ doomu aadama yi moo leen tax a jóg amuñ puukare amuñ rëy waaye li ne ci moom buñ ko li ne ci ñoom buñ ko génne woon nit ñi jaamu leen comme yàlla waaye dañoo tëdd ci suuf ak métite àddina yi yiñ jànkuwanteel ak problème yi dégg nga de ak feebar yi waaye mu aji boppam ca fa mu wax ne nit yi nit ñi nga xam ne tey faalewuñu àddina is laa yubaaluuna bi dunia wa zinatiha bal qasduhum naylu ixlaasil ibadaati dégg nga ak bu mu ne rijaalun lahum fil ayaati lahum mamaatun bi ma sabaru wa ayshuhumul manaya ñi nga xam ne bu ñuy dund dañoo jànkuwanteeg ay ay métite ki naqari ki jafe-jafe ba mel ni ñu dee ñu ne kañ mu ne kañ la ñuy dund nag bés buñ duggee ci bàmmeel booba la ñuy dugg kon ñoom loolu mooy seen falsafa loolu lañ jàngale ñooñu nag kooku nag maanaam pour comprendre ko wala nga jege ko foog nga doon borom saqaafa foog nga doon intellectuel foog nga doon koo xam ne dangaa jàng dangaa xam luy falsafa dégg nga de mystique da nga koy xam maarifatu billaahi ak yu demee ñooñu ñoo mën a dégg soo maam xalifa waaw ñoo ñoo ñoo ñoo ko mën a kii nu mu apprécier ndax ñun culture wolof amut loolu waaw maanaa dundu dundu dundu mystique amut maanaa baat yi nga xam ne sax dafa doon abstrait xayr malmus ñun daanaka amuñ ko waaw maanaa ci wàllu xam-xam boo xam ne da nga koy jéeli comme ni ñuy amee notion de philosophie mustalahaat yooyu amul ci wolof loolu moo tax nag maam xalifa ku jafee dégg la ay wayam itam mënoo koo firi baat par baat mafhum bi ngay jël tas ko waaw ba ci ni muy woyee sax ci ci ci siira xam nga wal jawwu aslama lawla ramyun bi shuhbi nibaali aw baariqun min yamanin yabdu ka daw il xilaali xam nga kooku boo ko bëggee baat par firi baat par baat maanaam mi mu ci bëgg a wax doo ko dégg wax ne maanaa xare bi pënd bi jàpp ko jàpp suuf lëndëm li tar ba nga xam ne da nga dellu da nga dend ak nit doo ko xàmmi ñu ne lëndëm googu lu koy lu luy luy luy dindi taraay bi mu ne xanaa fett guñ sànni mu dégg nga de mu mel ni mu- dégg nga de mu xotti lëndëm gi mel ni li li wolof di wax ne biddiw bu fàq wala ñaari jaasi yoo xam ne dañoo fenqante lonk ca kaw cat lii jëm na la cat na la dem ni mu mel ni mu mel ni weer hilaal maanaam bu croissant niñ koy séento leeraay boobu rek bu toxtoon ak moom lëndëm gi dafa maase xam nga ibaara yooyu eh, waxuma la dara sur le plan de la poésie ni mu kee wolof amut boobu waaw looloo tax da daan wax ne ah man nag samay way du xeeñ wolof waaw moom loolu loolu moo nekk donc moom eh, li mu indi ci kii boobu lu riche la macha allah
waaw, ci zahir ak ci baatin jërëjëf waaw loolu mooy yoonu faasam bi léegi nag gannaaw yoonu faas bi tukki yim tukki ci réew mi la ko def ñun kay ci lañ jëmoon ñi sax ndax ñu ngi bëgg a ñëw ci tukki bi nga xam ne nii ñun moo ñu moo ñu ci gën a intéressé ndax dafay tukki moo xam ne c'est spécial ndax dafay tukki moo xam ne benn yoon la ci niñ ko déggee yaakaar naa bu fekkee ci lañ jàpp waaye dafa jur ay njariñ yoo xam ne ni njariñ yu doy waar la muy tukki maam Khalifa Niass ak Fuuta muy diggante ñaar ñu bokk dëkk ci réew mi waaye nekk ñaari xeet yu bokkut muy ñu tuddee Haalpulaar ak wolof ñu war a jëflante ci wàllu yàlla te kenn ku nekk am nga ay principe yoo teg kenn ku nekk am nga ay principe yooyu dund ñu bëgg a xam convaincre googu leen maam Khalifa convaincre gannaaw boo xam ne ma nga départ wuñ ca waajuram ana maam Khalifa Niass tukkeem ci Fuuta ban date la lan moo ko undu luy cause bi ba mu demee yan moo fa xew ak muamalaat yaa ngi ca aju temps bu mu fa diiree ñaata la ay fan la fa defam ay weer yooyu yëpp bëgg nañ cee jariñu ndax histoire buñ ko takkut mbaa ñu bind ko mbaa ñu arrêté ko rek ëllëg ndaw ñi mën nañ koo ñàkk.
waaw tukki boobu cinquante et un la booba tafsir Balla mi nga xam ne ba mu dajeeg maam Alaaji Abdoulaye Niass tiwaawoon la faqee foofu ñëw fekk si ko jàpp ci moom booba moom mi ngi wut ku ko ku ko àttan ndax borom wilaaya la woon naka biran cëfut moom itam nam doon utee ku ko àttan pour feccali ko ba ki nga xam ne moo ko mujj dugal xalwa wala ñu ne moo ko mujj distixaa parce que xalwa la ndax ñetti fan la am doo- door a génn ne ko yow ki la àttan yow bi daan cëfut boor bii nga koy fekk daal di joxoñ bët saalum ne ko da nga jàll dex jàllat dex mu fekk ko kër ma sàmba ci anglais bi ci Gambie kii itam ca la toppee maamalaa ji ñëw fekk ko Kaolack daan jógee moo ko xayre booba dox a am muy dox di ñëw Kaolack jaaree ko buntab Linguère bi di ziyaara si maamalaa ji ñu ne mos na koo ziyaara si di ñibbi dem ba ba ba Labgar ci yoon wi la ku am ku jaar yoonu Linguère wi jëm Fuuta da nga ko xam mu làmb ngiseem daj cib dërëm muy dërëmi ngur di mu wàññeekuwaat ne du siyaare sëriñam di ñibbiwaat di yóbbu dara Allahu
dellusiwaat jox dërëm bi maamalaa ji door a dem kooku nag ba mu génnee àddina moo sabab rexla bi sama maam Khalifa def dem Fuuta waaye fu mu ko dalee waa kucce yi la àndal mag ñi booba ñoom Cheikh Ayta ak ñoom Omar Ndiome ñooñu ñoo daan woy ak bu amee ñu den féetee ndaw mooy ñoom Moussa Ndiaye ñu ñëw jaar ngir ngi new Alaaji Bakar Ñang famille am foofu la nekk mooy ki maam Khalifa warlu woon yoonu Makka wa ñëw Bawol ànd nag waa kër bi daan cëfu di ñoom itam booba ñu ngi ay waykat ñoom Amath Guèye ñoom Aliou Niang ñu ñëw cax ñëw dànq jaar si ñi dem jolof jagale booba alaaji mbow maka fa moo nekkoon maj soob moom itam ñoo ñëpp faq ànd ak moom kon daal fu mu jaar ci dëkk taalibe yi daal.
waaw léegi def étape par étape.
waaw ndax booba di saalum saalum di wax xulumbaan Mhm.
mooy tee quarante cinq yi camion tee quarante cinq yi booba mooma ndax booba suuf yi dafa bëri daanaka yoon amut Allahu akbar.
boo amul oto bu mag da ngay ngiru Mhm.
te oto bu mag boobu moo mën a def mbooloo moomu waaw li gaa yi wax ni njëmbat li fi fi mu ne nii ñi daanaka ndax foofu amul ay chaise kees la am yoon woowu la topp nag dem Fuuta Fuuta dem na fa Kanel moo ko xayre Taïba Oréfondé Oréfondé nag la fekk Cerno Bokar doonoon Fodé joo xam ne Fodé tukulóor la sama maam ba mu duggee dëkk ba la boot loxo yi ne dereti Cheikh Omar ak may xeeñ Oh.
ñu topp ko mu ñëw ba ci génd bëy ne fii suul nañ fi doomi Cheikh Omar ju jigéen waa dëkk ba mosuñ koo xam ñu fàkk foofa defar bàmmeel ba Mhm.
ba tey ñu ngi koy ziar mu dugg ci jàkka ji ñu jàngoon seen xalil yeeg seen tuufa yeeg téere yi nga xam ne masala yi des nañ koo dégg ku nekk indi sa téere di laaj mujj gi ñu ne xajuñ ci jàkka ji ñu génn Cum.
mbaaral ko mu toog Cerno Bokar ne sa téere bi wax juyusu tulaay Mhm.
Muhammad Yahya benn naar ci gànnaar fu mu doon jàngee mu ne mooy sëriñam moo ko doon jàngale ci kanamam naan xaalal ubaydiyul kawlaxiyu muhammadu salilu abdillahi wa huwa yahmadu naari naan wallahi la maa wa ubayd La ilaha illallah.
oh wallahi la maa wa ubayd ah kii di kii nekkul as njaam Mhm.
moom dafa wàcce boppam tasxiir ko Mhm.
mu ne toog naa mu di ko jàngale ba ci dégg bi benn jigéeni naar jóg ne ko may naa la nag daal di del si toog ñu toog tuuti naar bu jigéen bi jóg di fecc daal ne sëriñ bi "Eh, yaa bëgg nag ma may la nag rek nga wan ma Seexu Tijaan ci jàngale téere ma waaw ci jàngale rajo Ibnu Ayaabe bi maa ko ci nag
waaw naar bi ko may nag nag dafa toog ba mu yàgg mu dellu si di fecc ci géew bi déjà naan sëriñ bi yaa bëgg nag ma may la nag rek nga jox nga wan ma Seexu Tijaan mu ne ko déedéet wallaay borom téere bi moo la wan Seexu Tijaan moom la sama maam wax na taraawu yasabu min bisrin wa min tarabin déjà sawbal karamaati fi ardil kamalaati booba mënatul eh, li nekk ci siigare ci jëmm ji jëmm ji attanatu ko fokk cër yi yëngatu loolu tax naar bu jigéen bi tëb di dal Cerno Bokar ne ko boo fekkutoon ma jàpp sëriñ tey danaa jàpp ci yow Allah.
te booba tukulóor yëpp mooy seen sëriñ foofu moo tax xalifa boo ko waxee foofu ñu ne la Muhammad Aminata Allah.
moom la ñuy wax sama maam xalifa ñu ñëw Taïba Mhm. Nga dëkku tafsir Moustapha Thiam.
ah sama maam ne ah bii ñu def fa hirde Hirde bu ci tukulóor xanaa mooy daayira de.
waaw mooy mooy daayira bu ñu def guddi mu ne bii nag mbooloo mi am na ku ci gis yonent bi papaay ku ñëw Abdoulaye Guèye ne ko man xamaam ne ah gis yon gis yonent bi nag lu nekk a ngi ci mooy tafsir Abdou Guèye xanaa.
Abdou Guèye bu ngoog Mhm.
gis yonent bi nag lu nekk a ngi ci sama maam jógee fa dem kanel ñu dab ko ne ko ki gisoon yonent bi kat génn na àddina mu yebal sam papa muy Alaaji Abdoulaye Khalifa moo dem taxawee ko Mhm.
ak kii mm, ñoom alaaji mbow ca lañ bokkoon Mhm.
alaaji mbow moom moo gënoon a xàgg ñëpp
Alaaji m- moom jagali la dëkk fii ci jolof moo jur ñoom Cheikh Tidiane mbow mi àndoon ak sam papa ak Sidi Lamine te demoon Iran ñoom seen cosaan nag ba lañ sant waaye seen maam sëriñ bi ko tuubal mu dugg ci ceddo la woon bi ko tuubal mu dugg ci diine lislaam moo sant mbow mu jël santu sëriñam Allahu akbar.
waaye ñoom seen sant cosaan bala ay pël lañ ñu koy rob comme ni ñuy def rek ñu firi malaan mi ci kaw mu am ñu nekk ci biir di ko defar sikar si jolli sikar soosa nag bokkut ak sikar yi léegi ndax sikar yooyu dafa ànd ak xaal boo xam ne day mel ni asamaan seeg suuf si dañuy jaxasoo alaaj mboo ne ma ne baleen malaan mi ñu ne waaye buñ bàyyee malaan mi mu doon ñii la ñuy muur mu ne baleen malaan mi ma ne ñu ba malaan mi malaan mi taxaw ci kaw jaww ji Allahu akbar.
gars yi sikar waaw eh, jaloore bu ne feeñ la foofu mooy bi Abdou Guèye boobu noonu.
waaw, gaañu.
waaw.
léegi Abdou Guèye boobu bi muy gaañu bi ko maam Khalifa waxee na ko gis yonent bi mi ngi ci lu nekk. bi muy gaañu boobu maam Khalifa mi ngi biir Fouta wala génn na Fouta.
bon mi ngi dem mi ngi fuuta kanel la jëm ci yoon wi lañ Te dabe Abdou Guèye- te waaw Abdou Guèye moom nga ma ma- nga Taïba.
waaw ma nga tay ba ñu dab ko wax ko ko Mhm.
mu ne sam papa dëppal yow dem taxawee ko Allahu akbar.
sam papa moo ko taxawee ñëw nañ maatam Mhm.
buntu kër Aysatu Mariam Mhm.
di fa irde mooy daayira guddi yooyu Mhm.
tukulóor yi ne ko ah ñun nag sëñ bi am na lu ñu jaaxal Mhm.
mu ne lan ñu ne ko ilam ji at yi yëpp dafa ñëwut Ilam moom malam.
ñu ne ko mu ne lan mooy ilam ñu ne ko mooy mbënd mi bu dex gi feefee ba baawaan ci jéeri ji bu delloo ci dex gi suuf soosu mu tooyal ci la ñuy bay njax naat mi Mhm.
waaye du doon taw bi loolu nag bu amut njax naat du am mu ne bi xaw di laay wa quwwatihi Mhm.
fii ma teg sama sees bi
Mhm.
di fi gàmmu di fi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
bu déwénee ndox mi dana fi agsi Mhm.
ah tukuloo ne eh jol fo haadi de eh wolof bi oote de Allahu akbar.
mu am ku ne ah bu wolof de bu réeree cerem ba biiram fees la muy waxati du ko xam lu ñëw ci xel mi rek mu wax ba mu demee ñu wut jën wu mag li wolof di wax jën mooy bant bu rëy bu mag ngas foofu suul ko fa ngir ut tetaan.
waaw fa mu toogoon déwén sa ba ba nawet bi ñëwee ndox mi dafa romb bant ba daane kër ya ca gannaaw maatam atam xaw naa suux Allah.
ndax ndox mu bëri ah daf leen a wan ñu gis de boo gisee ñuy fàbbeeku fii di jógee Fuuta di ñëw fii Mhm.
loolu la
moom Fouta ndax yàgg na fa wala yàggu fa.
Fuuta yàgg na fa di ah lu dëkk yooyu yëpp nga dem ay weer la fa def di du ñaari fa te te booba xam nga am na ñu mu àndoon sax ci rakkam yi.
Euh, Fuuta xam naa ne njaboot gi moom li fi desoon bëriwul Mhm.
waaw doom yeeg ñëpp a demoon doom yi ñëpp demoon nañ boobu Baay Laay Ibrahima mi mi ngi doon xale waaye dem na kii xam naa boobu la mokkal alquran bees Baay Laay Baakar ak sama ñoom Baay ak ñoom ñëpp a demoon
te darse bi lañ doxaloon Fuuta.
waaw waaw
parce que ci darse bi lañ doxaloon.
waaw loolu loolu loolu mooy wax ci am na koo xam ne euh, dafa amoon boppam xaaraan bopp bi bopp bi di ko métti sama maam ne ko yow bala sa yaay ëmbee Mhm.
taatu sump gam demoon te am till gu fa fëxee tiital ko mu daanu biir bi dal ci xeer Mhm.
xeer woowu moo daloon ci sa bopp bi Oh.
boobu mi ngi la ëmb amaam dafa am ay kawteef yoo xam ne kenn kenn moo tax defuñ ko muy nit ndeysaan.
te loolu ni ko sama maam waxee noonu la amee kooku ne ko noonu la ko yaayam nettalee même man dégg naa ne am na xasida yoo xam ne nekkul ci téere yi foofu la ko taalifee woon boo demee foofu am na ñu ko mokkal man am na ko ma mos a wax loolu.
waaw ba tey ma nga fa yooyu ba tey ma nga fa sama maam lim taalif mu tasaaroo kenn xam ndax lim njëkk a taalif yëpp sama maam Malaaji da ko gas suul waaw waaw loolu loolu mooy wax ji moom daanaka xare xam da ko juddaale rek moom mu ne xamul kañ la dégg arab da dafa fendeeku rek gis ne arab dara umb ko ci kon daal xam naa ci buñ seetee daal maam Khalifa daal ci 1951 boobu noonu départ na fii jaar git ginnaaw topp dëkk yooyu dëkki taalibe yooyu yëpp fu mu dem rek am na délégation bu génn pour gunge ko mu daal di dem départ tukki tukkee mburéy boobu ak tukki ba lañ ca wax man am na mag moom ma sa wax ne ma bi muy ñibbisi yaakaar naa ne juróom-ñaar fukki nag am na ko ne moom mu àndaale na ko ci addiya addiyaay nag rek bokkut ak la nga xam ne nii moom la fa tukulóor yi dajale ci seen relation boobu noonu nga xam ne ca maam alaaji la woon xalifa nekk xalifa maam alaaji dem yorewaat intérim bi di ko suuxataat di ko jëmbaataat te benn yoon boobu rek la dem fuuta tamit lañ wax benn yoon boobu rek la di
te xolal rek lam fa taxawal yëpp déet te loolu bu doon dem di demaat kon yaakaar naa eh, Fuuta kenn du fa des ku may da ngaa doon taalibe Xalifa Ñas dëgg la waaw waaye benn yoon boobu la te nag te boobu itam ndox amut te bi muy dem du nawet noor la waaye dëkk bu mu mos a wàcc ñu war faa julli ndox te mu tiim fa tey dëkk yooyu yëpp forage fu mu julli rek tey am na forage waaw Allahu akbar.
waaw li ko dalee Sadio ba ba ngay dem Fuuta dëkk bu mu mos a tiim rek tey forage am fa bokk na ci xar baax yi ak barkeem yi nga xam ne moo juddoo ci rixla boobu tukki moom mu defoon Fuuta macha allah tabarakallahu kon mbokk yi ñuy déglu ci ndaylul maram point com yéen a dégg sëriñ bi moom xam naa ne bi mu duggee ci yoonu Fuuta bi moom man mënatu woon a téye sama bopp dégg nga lim ci wax yëpp ndeysaan fa tabarakallahu yi ci xew yëpp te mu nekk lu baatine lool lool lool kon boo dégloo portrait bi mu defal léegi di nga xam maanaam tukulóor yi bu ñu ñëwee Kaolack xaal bi ñuy àndat li muy uteeg àllug sama classe gi da nga xam yëg-yëg bi ñuy àndaat benn yoon ab xalifa bi dafa fay junne yoon ci ñoom kon fa tabarakallahu yaakaar naa ne gis nga sëriñ bi ni mu ko waxee ca 1951 ca la ca xew xam naa ne comme dañoo marqué woon ñetti point te ñaar yi sëñ bi tënkal nañu ci lu doy waar doy waar xam naa ci troisième partie bi léegi rek danañ dugg ak ñun ci maam xalifa bi 1958 jàpp 59 ndax date boobu it day date bu am solo ci góor gi te xam naa ne pour ñu mën a jeexal maam xalifa mën a dugg ci alaaji mu ndaw ci fan yi incha allah il faut que mu dugg ak ñun ci maam xalifa bi 1958 jàpp 59 kon technique alaaji Idrissa Diom réalisation Cheikh Babacar Touré troisième partie ci la ñuy ñëw ak yéen léegi incha allah bu neexee yàlla léegi ñu ngi ñëw ak yéen ci seen troisième partie wasalaamaaleykum wa rahmatullah